c'est grace à nous joxuñu nu suñu cër respecté nu tegu nu ci ay conditions yu baax instant bii ñuy waxanteeg yow période tabaski bii ku si nekk say parents yaakaar la nga xëy suba teel di yeewu 6 heures du matin def li nga di sa liggéeyu kër génn sa kër dem liggéey avec des conditions yoo xamante ni mënoo ko sax yaay paasal sa bopp. crédit bi ngay woote agence ba pour ñu dugalal la UV wala cash yaa koy jëndal sa bopp 1300 lignes ngay dugg chaque semaine ñoom yoon nekk si téléphone bi ngay wootee sa téléphone personnel la. téléphone bi ngay liggéeyee bu yàqoo yaa koy defar bi écran bi amee problème c'est ton problème téléphone yoo xam ne kenn mënu wax du mu mel. Sénégal moo am nu mu demee rek ñu ragaloon a wax mais dañu dem nag ba dañu sës sës nu sonn na noonu mën nañu wax sax ni am na nañu njàppal parce que ñun ñi genn wàll gi fi booy seet ñi leen dugal. tey si monsieur le maire la jóge Mansour Faye ndaxte ba projet Orange Money bi ba projet Orange Money bi génnee moom dafa seet ay doomu dëkkam mu jël leen dugal si leen ndax bëgguñu liggéey moo tax mais tamit bu tax bu defee loolu bëgguñu liggéey société bi mu nu dugal di ñu utiliser tamit duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg. tey nag li ñu bëgg mooy kan dañuy lancer appel à monsieur le président de la république monsieur Macky Sall mu dimbali nu parce que société bi ñu nekk di fa liggéey ñu ngi ñuy utiliser am na ñoo xam ne dañu percevoir 3000 francs de salaire si weeru tabaski bi nan waxante dëgg te yàlla tax condition bi noo ko wax nanu bu leen neexee ngeen dem si bërëb yi ñu nekk di liggéey kër yi ñu tax client bi def retrait ñu daw dugg si biir kër yi di àbb pour def retrait yi